ngeen jéggal ma tuuti rek kàddu yi du gudd waaye dana am dama bëgg sénégalais yi seetaan ñu xam ne bis naka tey maane bu jibee moo ne amatu ko yoon tey maane man ma dikk jëng maa nekkoon bennoo bokk yaakaar doon fa liggéeyal président Macky Sall àndoon ak dem si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm sëriñ Bassirou Mbacké diim maa ngi ñaan yàlla na suuf woyof ci kawam dem rëccu mu doon def ci àdduna te daje fa tawfeexi Cheikh Mamadou Bassirou bis ne ko tey maa yëkkati sama loxo ne bennoo bokk yaakaar tuddee tuma ko bennoo bokk yaakaar bennoo tas yaakaar na Benno Bokk Yaakaar nag man tey maa ne man ma dikk jàng àndatuma ñoom maa ngi mbooloo mi ma àndal maa ngi nuyu soxna Astu Gaawaan seen bokk ci njaboot ak sëñ Basiru Mbàkke maa ngi koy seen dëkke Daarul Tansiir maa ngi nuyu soxna Faat Njaay dëkke Kër Baay Laat bokk ci njabootu sëñ Basiru Mbàkke maa ngi koy seen maa ngi nuyu Fatou Ndiaye Touba Boukhatoul Moubarak marché bu bees maa ngi koy nuyu waaye niki noonu laay séenee mbooleem ñu fa jóge El Hadj jóge marché Mame Binta maa ngi koy seet ak mbooloo mi suuf woo ma téléphone ba waaye dañoo mën a yéeg Moustapha Dieng moom Baye Sëñ Dieng Juga Kébé mi ngi moom délégation bi ñu àndal su ma ko noonu fi la fanaan ñoom ñëpp ànd nañ mobilisé wu ànd ak Madické Niang mi nga xamante nii sa sax njabootu Serigne Bassirou Mbacké Typ gi di ñoom ñëpp ak plateforme bi nga xamante nii maa àndoon ak gis naa fi Ibrahima Diaby Gassama Petit Dioukhane ba ci soxna Maguette Bass ak mën naa ko ci cité ndax ci plateforme boobu la bokk ak soxna Boussa Diagne nekk di derrière Aïda Gaye ma nga ne toog ci plateforme boobu la bokk plateforme bi di bu yàgg di bu yaatu mais man nekk affaire moo ñoo fexe ba reconnaître plateforme bi kon tey dama leen di xamal ne ah attention nag affaire su fekkente ne am nañ ab tiitukaay wala ñu ne ñoom dañuy politique wala xam nañ luy politique image bii tey bu ñu nelaw ñoom image bii ngeen fi gis même yéen journaliste yi xam ngeen ne image su qualité ngeen fi gis te xam ngeen bu baax a baax département bi kenn du leen ko jàngal. ndax mbojo mbojo lañ fi andi wala ay nit lañ fi andi ñun duñ wax ak ki mbojo mbojo de dañoo yor ak lonkaan ak roq la dañuy lonk di andi waaye roq bi day roq di delloo ñu bëgg ñoo ànd ak kuy crise képp ko fi ñëw na la Birima ñor na la sëñ Abdou Karim ñor ñu ànd liggéeyal Birima Birima Mangara président 2000 le 24 février 24 loolu 2024 loolu lañ gëm ci dynamique boobu la ñuy dox kon nañ leen takku am jom am fulla am ngor te xam ne as gor kàddoom moo koy yeew xam naa ne su ma fi nekkoon di wax fii ba suba li ma bëgg a wax du jeex ndax xadar laa koy waxee ndax damaa yàgg foo xam ne amaluñ ma njariñ sama temps bépp jeex na ko ma door faa jóge ñëw ci Birima Mangara ànd ak moom ma di leen xamal ne nag ñi naan Birima dëkkul Touba dañoo réer xamuñu Birima Mangara Birima 1996 la ko sëriñ Saaliwu Mbàkke jox ab loo fii ci jànnatul maxwa boori kër Sakariya Fall maam say Fall la dëkkal maa xam këram kër ga bokkoon naa ci ña fa doon dem any di ko yit añ ak reer di ko jëlee kër sëriñ Abdou Saman Mbàkke soxi bu booba maa ngi yore ONG amal wax bu leer laa leen di wax saa bu ma ko masaan yit añ bu ma jëlee bool ba biri ma jox ma 20000 su ma ko yitee reer su ma jëlee bool ba mu jox ma 20000 biri ma li boole maa moom wax tey bis bi di la 4 novembre. Mbàkke ñoo ngi fi ubbi benn permanence boo xam ne si ne permanence wu Birima 2024 IDP àndaat pas ànd àndaat defaraat suñu Sénégal ndax ay ànd yu bari am na fi candidat bi ñu am nag c'est la première fois mu dugg ci politique ne day jël réew candidat boobu en 2014 la ko président Macky Sall nommé ministre du budget du Sénégal loolu duñ ko jox n'importe qui mu yore ko ba 2019 bi 2019 mu génn ci gouvernement bi bi ñu ñëwee bay jub 2024 mu nekk citoyen sénégalais boo xam ne def ne soxla naa réew mi seet yan nit la ci mën a àndal ñi toog ñëpp ay gox lañ ñi toog ñëpp ay ndaanaani politique lañ. ñi ci doom am nañ jaar-jaar ci politique ñii kuñ àndal ngay wuti réew sa xel war naa dal ndax gis naa bi ñoo xam ne ñoo àndoon ak Macky Sall jëli réew mi gis naa bi Macky Sall jëlee réew mi bëgg koo yor tamit ci seen tee bakkanam dañoo ñëw mu demandé leen pour mu ànd ak ñoom ñu ànd ak moom kon tey ñoo ngi lancé appel ci Sénégal yëpp di leen wax ne leen Birima Mangara candidat la à si élection 2024 yi ñu jëm di leen wax ne aussi waa departement bu Mbacké tey le 4 novembre ubbi nañ permanence boo xam ne permanence bi ñu ngi fi fas yéenee daje di fi nas ak di fi nocci ba 2024 ñu jël réew mi ci loxoy waa Benno Bokk Yaakaar ndax waa Benno Bokk Yaakaar wane nañ seeni limite ndax réew bu ñu demee ba nga xam ne si ne courant bi seer na mburu bi seer na tamaate sax la daan jar téeméer léegi deux mille francs lay jar kon waa Benno Bokk Yaakaar wane nañ seen kon nag li am solo mooy tey jii waa département bu Mbacké waa ANSD génn nañ benn déclaration ne ñoo ëppale ay nit ci département yi nekk Sénégal waaye mooy département bi gën a lompoñ ci Sénégal mooy département boo xam ne su weesoo Touba weesu Mbacké ak Taïf ak Tiib yi nga xam ne tali ba moo ko jaar amul beneen commune booy dem ci département bu Mbacké ab tali mën laa yóbbu ba sa biir commune boobu amul Touba bi nga xam ne moo tax département bi ëpp ay nit ci Sénégal soixante-dix quartiers lu mat ñeenti at naanuñu amuñu ndox kenn réglewul seen problème Touba googu transport ak commerce moo fa am li ëpp lay transporter nit ñi ci dëkk boobu ay sareetu mbaam lañ neuf cent deux sareetu mbaam lañ ko recensé dëkk boobu ñoo gën a néew ñoo gën a néew ay intellectuels yu ñuy créer ñoo gën a néew taxawu bu ñu di taxaw amul centre de formation de métier buy ubbi bu leer boo xam ne nit ñi dañ fay jàng ay métier pour mën a téye seen ngor kon nag sàngane ko nga xam ne sàngane ñu ko depuis 1960 ba léegi ñoo ngi lancé appel population département bu Mbacké ne leen tey doomu Diourbel boo juddoo bu juddoo kër Samba Kane ñu koy wax Birima Mangara dëkk Touba mais nag soxla Sénégal di mbokkam ñëpp di Sénégal moo ngi leen di tàllal loxo pour que ngeen fal ko 2024 moo régler problème yooyu di sant bu baax aussi Serigne Abdou Karim Mbacké bu baax ci taxawaay bi nga xam ne am na ko parce que moom ci projet bi la bokk il n'est pas un homme politique wàccul sur le terrain mais si ñu porté projet bi la bokk bari nañu toog fii ñëpp taxawaayam ak kàddoom ak gis-gisam moo leen indi ci biir projet bi loolu moo di lancer appel aussi ñun ñëpp nañu jàppandoo téyendoo te xam ne réew mi bal buñ sànni la fi mu toll dañ koo salsalaatoo ku ne mën na koo capter salsalaatoo wala boobu ko lay doon def ku nekk mën naa ñëw ci say loxo waaye nag nañ fexe ba bu mu dem ci loxoy Amadou Ba ndax amul courage mus na taxaw ne candidat la il n'a jamais demandé le Sénégal dañoo xëy benn bis ay lobby homme d'affaires ak ay journalistes ñëw bëgg ko fee teg yoo xam ne si dañoo am intérêt pour Amadou Ba loolu ñu duñu ko nangu léegi nag ay gumba kese ci benn dëkk nañ ma baal na ay silmaxa kese ci benn dëkk benn njaajaar nekk ci seen biir mën na leen a nax problème bi nag mi ngi am bi silmaxa yi tàmbalee juri njaajaar ñun duñu nangu mukk kenn di falu di bàyyi département Mbacké bu ginnaaw rawatina bu Touba maa ngi leen di sant di leen gërëm